ci ay gént lañu nekk te am na ci ñoo xam ne ba léegi ñaari dërëm fay ñu leen ko ñun loolu moo ñu jommal moo ñu jaaxal li ñuy waxee nag dinañ ko waxee noonu parce que dañu am lu ñu metti am lu ñu naqari am lu ñu tiis mbooloo mi ci dee ci lii kenn xamul nu mu toll fii liñ ci jaale ci ay nit kenn xamul nu mu toll teer bi ci liggéey bi ci boppam li mu fi rey ci suñuy gone kenn xamul nu mu toll kon donc lii dafa nekk loo xamante ni dafa metti président nag bu fekkee lu baax la si jubloon Nous ne ni ñim ko des defuñu fi dara lu baax taxawuñu lu dul nous ñu lañ Nous taxaw ñun ba joggé ci loolu ñu mu melni am pawum xalé lañ doon def ah ay mbaay ñun porter plainte l'État du Sénégal auprès des bailleurs bailleurs yi nga xamanteni dañu jël ko ko banque pour développer le Sénégal

état du Sénégal nangu na ni da togn ku nanguwul waxtan ku nango waxtan xam nga ni da nga togn té tooñ ji tamit ñun xam nañ ko té dañu am ay preuve bailleur bi avant muy rendre le projet éligible dafa def ñeu fii enquête envoyer des experts indépendants ñu def enquête bi ñu jox leen ay preuves yu wër plus de 1000 lettres réclamations mi ngi ci table ñu xam ni li ñi wax lu wër la ci lañu ñëwé daal di ñëw euh proclamer éligible cette plainte là li ciy tegu nag mooy conciliation boobu ñu wax état du Sénégal accepté na ko pour ñu négocier tok waxtane wat mbir mi li nga xamante dañ ko bokkandoo mu nek problème ñu xol ni ñu koy régler do ak kenn ku nek tamit ci impacté yi problème bi nga xamante mom daf ko am budé dañ ko pay payoon gu baxul budé dañ ko digol luñ ko joxul ñoo ñep nañu indi sen dossier ñu boole ko ci biir conciliation bi maanaam waxtaan ba ñu doon def ci maison terre yooyu moom lañuy ñuy yooyu baaxatul amatul solo bailleur bi nee na conciliation ya ñu defoon part ba ñu tëggoon baaxatul dañuy recommencer lépp à zéro li ko indi nag mooy nullité APIX seen ñàkk xarañ ak seenu coxor moo indi loolu. lii nag dafa nekk loo xamante ni coow lu dul gaaw fay la.

la ñu bëgg a wax après suma mu leer lañu mu lan la ci def fu mu ko dugal fu ko dugal laaj leen ko fu mu ko dugal